Ravi de vous retrouver, am fidèles internautes Sénégo TV et Kawtef. C'est toujours un plaisir de vous présenter euh, votre émission Face aux facettes comme ni ngeen ko xamee rek chaque numéro ak invité bi nga xam ne moom lañ leen di tegal fii tey nag euh, ki ñu invité ñii dañ ko dañ ko xaw a ragal <laughs> ñii aussi d'une part bëgg nañ xam exactement profilam ci les quatre fantastiques kan la kooku mooy Loulou Loulou ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax fii ci Senego TV ak Kawtef. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di jox seen wàccuwaay di bëggee Sénégal bi yëpp xam di bëggee tamit képp koo xamante ni yaa ngi doon suivre képp koo xamante ni yaa ngi doon suivre les quatre fantastiques rawatina fans yi ak ñëpp maa ngi leen bëggee daal nuyu naa leen bu baax. d'accord ñu ngi lay fay bu baax di rafetlu aussi invitation bi nga xam ne nangul ñu ko malgré que gis nañ ne agenda yi chargé na sollicitation yi aussi bëri na nga ñëw fii ci Sénégal may ñu li nga xam ne mooy exclusivité bi ñu la ciy remercier bu baax <laughs> comme ni ngeen ko xamee ami fidèles internautes Sénégal TV ak Kawtef émission face ou facette dans un premier temps ki nga xam ne mooy invité bi dina jox li nga xam ne mooy information actualité ci deuxième deuxième partie ñu jàll ci confidence daal di ko tëjee ak question quiz kon ñu sumb rek dugg ci waxtaan bi ak yi nga xam ne mooy Loulou Loulou tey buñ doon wax présentation kan mooy Loulou lan ngay wax internet yi nga xam ne ñu ngi lay suivre fii ci Sénégo TV ak Kawtef. Euh, man d'abord je m'appelle Omar Choy comme ni ko ñëpp xamee. Mhm. loolu moom benn personnage la bu ñëw ci Quatre Fantastiques. Mhm. juste pour apporter benn touche. boo xamante ni peut-être dina satisfaire euh, téléspectateurs yi. Mm-hmm. et que nuñ ko gisee noonu euh, man benn jeune la mm-hmm. boo xamante ne ni damay vivre le cinéma mais plus particulièrement damay wax art xam donc euh, loolu la daal et que nit laa boo xamante ni awma problème parce que ñëpp laa mm-hmm. amal jàmm. xam nga lu dul cadre professionnel parce que bu nekkee liggéey moom dañuy liggéey jox a xam. bu dul liggéey tamit ñu sekk ak ñëpp jàmm xam nga ah, mu ngi noonu daal gars yi xam nañ ma xam nañ ni man Baye Fall laa xam nga wàccee sama bopp noonu lay dund ak gars yi. d'accord loolu quoi. tey sa intégration Marodi boo ñu ko doon wax casting la wala link daam koo fa xam comment ça s'est fait. waaw ñu bëri nag ñu ngi may laaj loolu mais dama leen bëgg a rassurer rek wax leen ni que casting la. Mm-hmm. dama dem présenter wu comme ni ko ñëpp di defee ma dem postuler. Mm-hmm. bi ma demee tamit. def sama casting après si laa si laa dem ñibbi après deux mois après wala ay un mois quinze jours si lañ ma woo wax nañ wax ni ma que dañ ma soxla. Mm-hmm. noonu daal la demee si sama intégration wu Marodi. Mm-hmm. casting bi da ko yëgee sur la toile wala nan nga ko yëgee. waaw comme ni ko gars di yëgee rek si laa ko yëgee si internet bi. Mm-hmm. après voilà si lañ ma si si lañ ma envoyé message wax ma ni que casting bi dina am jour temps. bu jour booboo dinaa ñëw. Mhm. bu ko defee xam nga noonu la demee daal jour boobu ba mu ñëwee tamit si laa dem xam nga def comme ni ko ñëpp di defee ma postuler sama sama candidature. Mhm. après si laa si génnee sama xel sa nekk samay activité mhm. après ci loolu yàggul dara ci lañ ma woo. wax ma ni que dañ ma dañ ma soxla. d'accord voilà à part Mbaroudi def nga yeneen yoo xam ne production. Mm. yoo xam ne def nga ko wala it bi ngay dem amoon nga njoxtu ne sa profil dina intéressé ñi nga xam ne ñooy waa Mbaroudi. waaw loolu tamit xaw na naa si am doute parce que xaw ma ni xaw ma woon sax genre rôle carrément bi ma doon joué loo. parce que bi ma ñëwee si lañ ma xamal ni que rôle bi nii la demee. Mm-hmm. xam un peu voilà quoi xawoon naa si am xel ñaar. vu que man acteur la et yu bëri duma ko sóor sauf ko nga am ay principe xam nga donc après si laa accepté rôle bi noonu ma ma ma ko loolu loo rek la quoi mhm. exactement rôle bi dinañ ci dugg bu gën a baax ci deuxième partie confidence bi mais tey buñ doon wax ki nga xam ne muy Loulou ak production bi ak retour yi est-ce que xaaroon nga tey ñu ne Loulou moo nekk révélation ci les fantastiques à vrai dire damay wax waaw lu tax may wax waaw mooy euh, liggéey bu liggéey bu sotti rek daa fekk euh, nga nga xaw see dee comme ni ko gars yi di waxee. Mm-hmm. et ku ma xam xam Omar dëgg sama fami sama entourage samay proche ñëpp xam nañ ni que voilà dama mës a gëm affaire bi. Mm-hmm. xam nga dama ko doon wax sax tôt ou tard yàlla dina def ni que genre li may xëy di dem casting. Mm-hmm. xëy di ko dox et bis dina ñëw mu fay. donc peut que noonu la demee et que si surprise bu ngandee ngandee. sauf ko voilà quoi le fekk retour yi di ñëw en masse. Mhm. loolu xaw na ma euh, xaw na ma neex neex na ma sax carrément neex na ma. Mhm. Mhm. xam parce que liggéey bu nekk rek daa ngi siy xaar côté bu positif. te côté bu positif yi ñëw na xam nga donc duñ def dara lu dul di ko sant yàlla. am na solo internet Sénégo yi ak Kawtef je vous rappelle que yéen a ngi seen émission face aux facettes en même temps aussi ci émission bi je suis accompagnée par euh, complexe Eva Beauté ak waa Guèye Couture ci kanam incha allah dinañ partager numéro yi ngeen wooleen leen rek soo leen bëggee ci yu baax loolu ñu jàll ci deuxième partie confidence ñëw ci Loulou ak aussi Omar Thioy Loulou rôle dëmm rôle vampire loolu nit ñi ragal la mm. loolu tey rôle boobu est-ce que réellement xaaroon nga ne di nga ko réussir comme nii ci série bi parce que loolu duñ ko doon gis mu wax moom day jékki-jékki rek ñëw def ay affaire vampire dem ci mère Sow ñëwaat aussi entre autres est-ce que xaaroon nga rôle bi carrément que di nga ko mën a incarner ba Sénégalais yi niñ ci kontaanee ci weeri kool euh, au début moom damay wax c'était très difficile metti woon na quoi. pourquoi mais boo demee foo xamante ni ñëpp ay professionnel lañ da nga siy da siy génn quoi dañ nga siy génn et au début aussi biñ ma koy jox wala di ma ko interpréter que rôle bi nga war a jouer xaw na ma xaw na ma touché tuuti. parce que voilà xam nga xam nga xam nga Sénégal moom moo nekk dëkk boo xamante ni mm-hmm. genre. affaire de affaire de dëmm comme ni ma ko mën a waxee dañ ko dañ ko ragal dañ ko ragal sax. Mhm. donc voilà une fois que nga xëy nga xëy nga xëy incarné si série bi da ngay day dem ba day day dañuy nekk day nekk dëgg si ñoom. Mhm. xam nga donc voilà donc bi ñu demee tamit nag ba rôle bi taxaw xam nga ñu am ñoo xamante ne dañu jàppale dëgg ku su mel ni ku su mel ni Pod. Pa mhm. Omar Diop. ku su mel ni Zé ak Jaamaan. Euh, xam nga jàppale nañ jàppale nañ moom bu baax wan ma ni que mën naa ko def mm. et profil bi dafay nekk moo tax ñu ñu ñu ñu ñu proposé ma ko mm. donc voilà après noonu la demee rek au fur à mesure caméra bi di la di la tiim da ngay dem ba da nga koy koy tàmm mm-hmm. loolu la woon quoi après ma dem ba adapté si nekk si xam nga di di door muy daanu quoi mm-hmm. noonu la demee est-ce que Omar Thioye gëm na dem ah <laughs> ñu de Sénégal lañ nekk comme que da nga juddu fekk ko ñu koy wax dem sa mosoo koo gis ak yooyu noonu waaw kon boog duñ def dara lu topp suñuy tànk mag rek gëm ko rek ñun tamit rek xam nga waaw te day te di moytu nag mm-hmm. te di moytu ndax ñu rek nekkuñu fi ñu rek nekkuñu si àdduna mm-hmm. dem demee na noonu nag am na yu bëri yoo xamante nii nga gëm ko ñaax ko gëm yëpp da ngay moytu rek waaw da ngay moytu rek loolu rek la. dangay ngay moytu kon dinañ xaar Omar mu takk téere dëmm. <laughs> waaw ci dëmm la bu ko jaree moom ñu def ko quoi. bu ko jaree moom ñu def ko. ak suulu dëmm bi ak sangu bi ak suulu lépp lañuy def kay naan. <laughs> <laughs> dafa doon rôle boo xam ne tey Sénégal dafa am réalité mhm. parce que euh, di nga gis ñu naan ne kii dama la kii dañ koy daw mhm. da ngay gis sax parfois ay histoire yoo xam ne day mujjee police mhm. tey boo ci doon joxe message en tant que yow nga interpellé rôle entre guillemets dëmm wala vampire ban message nga leen wax pour les Sénégalais ak aussi ni ñuy dundee ci genre yooyu euh, loolu li ma ci mën a wax mooy Euh, comme ni ma ko waxee sànq rek dafa am loo xamante ne nii réalité la réalité la si sénégalais yi. donc euh, une fois que ñu gëm ko euh, dootuñu si dootuñu si génn. te bu nekkee da nga judd fekk ko fi gars yi di ko wax xam nga ñëpp di ko di ko toogee donc doo def dara lu dul moytu comme li ma waxoon. te aussi bu nekkee dafa am loo xamante ni tamit dafa nekk si si si jikko yi mooy nit boo xamante ni dañ koy tooñ à la fin même bu nekkul dëgg day dem ba law. mu nekk si quartier bi wala si fu mun mënta doon day dem ba law looloo waral yu ñu nit ñu bëri dañ dem ba dañ am kersa wala dañuy rus a génn ndax dañ leen di tooñ wala sax dañuy déménager kon loolu duma duma si wax dara lu dul ñu ñu teey ñu ñu ñu def si nànk parce que léeg dafay nekk soxor comme loolu moo daroon mère Sow ak <laughs> fi mbay loolu dafay des fois dafay nekk soxor des fois mu nekk affaire de ennemi des fois mu nekk affaire de règlement de compte yooyu yëpp mën na nekk donc nañ ci tey te xam ni daal affaire bi nag lu lu nekk la <laughs> man du ma ci <laughs> ma sori daal moo moo laa wax ma ne daal na ci gars tey. ak aussi coow li nga xam ne da ci ànd récemment rek on a vu des révélations d'une chanteuse tey aussi yow nga nekk ci milieu bi lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi nekk jeune en même temps aussi ci seen carrière bëgg réussir à tout prix. li mu leen di wax moo ñu gëm seen bopp rek. ñu gëm gëm seen bopp xam ni euh, li ko li ko li ko dib dund gis di waxee noonu la demee kër bu nee la fa nekk daam ko ko fa def xam nga lu waaye mën a téye lu waay mën a am xam nga euh, dañ ko kii dañ nit nit moo ko defar nit moo ko defar que mu nekk jeune mu nekk pas ku si nekk dafa am sa passion di ko dund te jeune bu si nekk war ngaa mën a am passion di ko dund te du la yàqal dara yàq sa vie professionnelle mm-hmm. parce que man maa ngi liggéey su ma xëyee damay dem liggéey sama bureau xam nga après eh, damay eggali sama li nga xamante ni mooy mooy mooy moom moom laa bëgg. donc jeune bu si nekk na nga gëm sa bopp xam ni yaa si mën a génne sa bopp mais aussi yaa si mën a génne say parents et ñu bañ a déglu kenn parce que dañoo nekk réew boo xamante ni booy bàyyi xel sa ginnaaw doo mës avancé te ñu nekk si showbiz bi ñu képp koo xamante ne euh, artiste nga ak loo mënta def si milieu art bi nga gëm sa bopp xam noonu la demee daal parce que yàlla ñëpp la fi nekkal sunu borom ñëpp la fi nekkal donc boo ko tàllee loxo ñaan ko rek incha allah da koy def daal. comme ni ko gars yi di waxee rek. septième art bi hmm? waaw ñu ngi siy gis suñu bopp moom. <laughs> ñun dañuy laaj rek. waaw non si lépp <laughs> gis suñu bopp parce que time is money quoi time is money bu dee danga danga bàyyi dara. day fekk nga jàpp si dara. xam hmm. parce que tournage yombul. Hmm. mënoo mënoo nekk si àll bi ay plus plus plus des des mois ngay tourne wala nga nekk si loo xamante ne nii say parents duñ la gis famille bi duñ la gis. Hmm. xam balaa ñu laa mën a gis rek day fekk tournage bi jeex war nga woo leen waruñu woo leen. des fois sax duñu xam ne ba xam yaa ngi si jàmm donc euh, bu nekkee dañoo jóge suñu kër pour nekk si millier art bi foog ñu gis si suñu bopp te macha allah ñu ngi siy gis suñu bopp bu baax xam nga. noonu la demee daal te passion maa lay xamal dara passion moo nekk lu garaaw di nga nekk si mbir di ci di ci yëngu yàlla xam na ni waxuma man quoi mais duñ la duñ la duñ la fay dara par exemple ñu bañ la fay dara te pourtant da nga si continuer ba tey c'est que passion bi moo la si yóbbu parce que da gis euh, un vieux boo xamante ni am na quatre-vingt-dix ans wala quatre vingt ans nekk si àll bi di bay xam nga te li muy bayee maanaam loolu moo nekk passion am te vieux boobu noonu mën na nekk koo xamante ne nii millionnaire na yor na xaalisam bu bari mais le fekk moom muy bay xam nga di di di di di ñu koy waxatee di récolter. Mm-hmm. moom loolu rek da koy dundal quoi donc passion moo mën a def loolu comme acteur itam ñi si bëri ñëpp passion moo leen si dugal bien vrai am na benn benn boo xamante ne nii waaw voilà côté xaalis bi la. comme mm-hmm. ñun ñi ñëpp.

tourné ci ay série alors que yow sa cachet motul sa cent mhm. nga am benn source de revenu ça pose problème di nga sañse di nga am sponsor et tout mhm. mais retour à l'investissement daa des donc ce serait bien que yéen ñi xam ne da ngeen di ñëw doon révélation ci série yi aussi que vous envoyez des messages à jeune yi nga xam ne bëgg nañ intégrer septième art te it xam réalité yi ñu fiy fekk d'abord mhm. il faut ñu am benn métier wala ñu jàng ko parce que au mhm. va aussi ñeneen ci beneen côté bi dañuy âgé mais situation day am ba après day am retour yoo xam ne xaaruñ ko woon dëgg la parce que parce que boo xoolee euh, euh, dans dans le passé mhm. ñun dañ dañ doon seetaan ay théâtre yoo xamante ni franchement dafa dafa dafa neexoon dafa neexoon trop trop trop mhm. ba nga xamante ne nii genre ñu dañuy foog ni sax ñi koy joué mhm. voilà jeexaluñu dara mhm. loolu la ñuy foog mais en réalité euh, nit ki moom li ngay dund li nga yàgg dund moom ngay continuer di dund donc bu nekkee gars yi dañ siy gis seen bopp carrément li ñu leen di foogee mën na nekk mooy la fekk ñu leen di fay ay cachet yu baax yooyu mën na nekk mais nag bu nekkee dañ leen di xoolee beneen bët boo xamante nii ñoom gisuñu seen bopp dafay xaw a metti te jeune bu si nekk balaa ngay dugg si dara mhm. na nekk loo xamante nii da ngeen si waxtaan ba juboo teg contrat yi nga signe mu signé mhm. après ngeen liggéey mhm. bu boobaa lu mën a xew danañ xam ne yow contrat moo la lié ak ak fi nga nekk donc loolu quoi et que ñi nga xamante ni tamit dañuy ñëw ñu leen di proposer ay ay salaire ay salaire yoo xamante nii euh, minable laa ko mën a waxee donc nañ ko bañ a accepter xam nga parce que liñ gis si yow moo leen jaral ba ñu bëgg laa bëgg a euh, intégrer si seen bopp donc na fekk loo xamante ni dañ si gis sa bopp et que da ngeen mën a liggéey si jàmm ak salaam. Mhm. te bu dul dara aussi ni ma koy waxee rek cinéma moom passion la. Mhm. donc une fois mu nekk passion danga koy dundal di ko dundal sa bopp. Mhm. mais du tee da ngay am métier wala nga xam loo xamante ni yaa ngi koy def. ba boo bàyyee cinéma wala boo demee ba kenn woowatu la si nga am ci loo jàpp. loolu quoi man moom loolu laa gëm. D'accord. Internaute Sénégo TV ak Kawtef je rappelle que yéen a ngi seen émission face aux facettes ñu nekk nag ci dernière partie bi avant ñuy jàll rek ci question quiz yi euh, damay remercier ñi nga xam ne ñooy waa complexe Eva seen numéro nekk ci 77 951 35 58 wala it ci 77 836 93 euh, 78 ba noonu tamit ci lay ñëwee remercier ñi nga xam ne ñooy waa Guèye Couture ñoom ñoo jaar ci tenue bi ñoom tamit ñu ngi nekk fii ci parcelle unité 26 seen numéro nekk ci 78 975 98 80 wala it 78 493 60 82 waa Gueye Couture ma bàyyi la rek nga sànni sama sponsor yooyu waa Gueye Couture ak complexe Eva Beauté ndaxte ñoom ñoo ma sañseel waaw ah, macha allah li nga sañse rafet na trop mm-hmm. kon waa Gueye Couture ak mm-hmm. complexe Eva ñu ngi leen di jaajëfal bu baax macha allah yàlla na liggéey bi yoox si kaw sa kanam merci beaucoup ñu jàll ci dernière partie bi rek muy question quiz euh, tey buñ doon wax euh, ki nga xam ne mooy Loulou lan moo koy définir ci ay qualificatif tey mun nañ ne daa nerveux wala dafa gaaw a mer wala ku timide la nan lañ lay définir sama bopp du ma si wax lenn lu dul man ni ma gars yi xamee rek man moom aw problème ak kenn franchement du du du du du faute sama bopp sax mais carrément noonu la demee parce que saa su ma demee fenn rek damay dem a adapté wu si milieu bi ma nekk ndax man damay naan mën naa nekk ak képp képp ku mu munti doon si àdduna mën naa nekk ak moom parce que noonu lañ ma yaree. xam nga du ma manqué de respect kenn xam nga mais tamit dama bëgg nga franchir ma bu lu si nekk rek si fi ñuy yem ak fi fi ñuy liggéeyee xam nga fa la ñuy fa la fa la ñuy yem daal. <laughs> léegi li nga xamante nii mooy ma personne man dama dama timide de nature. dama timide de mm-hmm. nature nature mm-hmm. donc des fois sa gars yi bu ñu gisee que may joué may may may may may incarné rôle loolu mm-hmm. des fois sama famille sax daf leen di xaw a def problème quoi parce que man du ma du ma sax sigi xool nit donc le fait que gars yi di wax nii <laughs> waaw xaw a sa jaaxal man du ma sigi sax xool nit amam dama timide xam nga cool bëri jàmm bëri jàmm xam nga parce que noonu la ñuy yaree noonu la ñuy tarbiyaawee xam nga noonu noonu noonu daal la demee d'accord lan mooy plus grand défaut loolu wala Omar Thioye. sama defoon nag euh, mooy bëgguma ku may tooñ ak tuuma. Mm-hmm. ak tuuma tuuma moom kenn bëggu ko. Mm-hmm. kenn bëggu ko man bëgguma ku may tuumaal ak di ma wax loo xamante nii defuma ko man dem sax dëgg la euh, tuuma moom alalu gor la. Mm-hmm. te du ñëpp ko mën a nangu. waaye saay boo ko nangoo rek xamal ni ci ngay ci keroog ngay gën a mën a avancer. xam mu ngi noonu daal. loolu loolu mooy défaut bi xam nga wax loo xamante ni wóoru la ak di créer ak di inventer loo xamante ni maîtriser woo si dara xam nga loolu daal mooy sama defo à part ça man naa quoi. mos ñu waxal la wala ñu inventer la xam ne da ko dégg rek taf sa gémmiñ. Euh, pas nag pas mm-hmm. dégg-dégg bu graaw moom noonu non xam nga boo déggee ma naan lu tuuma mooy. boo ma créelee sax comme nga ne ma yow yaa jël micro bi yóbbu ko fële te defuma ko dama si seetal sama der waaw dama si seetal sama der ndax bëgguma ëllëg ñu naan diw moo def lii wala moo wax lii donc une fois que loolu am damay damay si seetal sama der xam nga après ku nekk xooli leneen loolu rek la. d'accord Omos Thioye est-ce la. waaw moom laa bëgg a doon nag ndax Baye Fall bi moom ñëpp xam nañ ko kenn la. Mm-hmm. Daabay maam say Ndiaye. Mm-hmm. waaw moom rek mooy Baye Fall bi. te ñun si si si mooy suñu yoon si borom Touba. donc euh, si lañ si la ñuy yar ndax man maa ngi maa ngi yaroo daanaka Golf Sud si benn quartier boo xamante ni c'est un peu dense. nekk euh, quartier boo xamante ni bëri na ay Baye Fall ci ci ci ci ay jikko yoo xamante ni yu baax la. te sunu daara tamit loolu la ñu jàngal tey mën a baale. mën a mën a nangu tuuma. ba noppi di di jéggale. loolu la daal ma leen ni siyaaraat bu baax bépp daara bu nekk golf rawatina sama daara ma fàttewul Bichri di Touba golf Afia di nuyu bu baax sama sëriñ Baye Galas Mbacke moom sëriñ Afia Mbacke mu sëñ Fallou maa ngi koy siyaar bu baax di ko wax Mbacke dundal lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu di ko ñaanal jàmm bu baax di nuyu tamit sama jëwriñ Abdoulaye Nguer ndax li nekk si man yëpp moo ma ko def waaw ndax yàgg na ma wax gëmal sa bopp incha allah yàlla dina def li di nga percé kon waxam jooju noonu tey laa koy gën a firndeel di ko siyaaraat bu baax moom jëriñ Abdoulaye Nguer mhm. ak waa daara bi yëpp ak soxna yeeg yëpp maa ngi leen di siyaar. d'accord Baye a mel ci ni mu war a mel mooy li Cheikh Ibra wax rek mooy doon as gor ba noppi nangu tuuma mhm. ndax moom wax nañ ko lu ne ndax bi borom Tuubaa yi bañ koy yóbbu sax am na ndaw lu ñëw si moom ne ko. lii lépp yow jaay nga xoo jaay jaay jaay jaay ba mu ba mu ba mu ba mu tubaab bi jàpp ko léegi nag noppalul ñu noppalu ndax tubaab ku mu jàpp doo ñibbisi. nee na nag muy wax boo xamante ni bu ko diisoon loolu la waaye mu nangu ko rek xam ni tuuma moom alalu gor la. te ba ko loolu dalee tamit ba ku tedd ki ñibbisi bi mu ñibbisee ndaw si ndaw li ñëwaat na ba si moom. ba pënd ba wuree yëpp ndaw li ñëwaat na ba si moom ne ko faal lii lépp yawa mu ne ah mu ne kon aw xas dina soppaleeku doon ab tagg kon Baay Faal noonu la war a doxee ba pare set la jéggal ñëpp lu la waay wax nga ne ko baax na lu la waay wax mënti tuumal nga jéggal ko te xam ni daal mbiri moo demee noonu waaw du du du du du ñëpp la ñuy waxal waaye ku ñu waxal rek xamal ni maanaam sunu borom mu ngi lay teg loxo waaw loolu rek la Cheikh moom wane na yoon bi ba pare kon ku si nekk di wax rek yow yaa siy des mhm. waaw moom moom wane ni yoon bi ba ba noppi d'accord avant dernière question rek quelle est la plus belle expérience de Loulou plus belle expérience mooy la fekk ñu ma ma découvrir mhm. la fekk ma découvrir des acteurs euh, yoo loo xamante nii de renommée euh, internationale mën naa wax loolu parce que ñun géewuñ joué wuñ quatre fantastique rek pour yem fii nii. Mm-hmm. parce que dañoo am ay paliers yoo xamante nii dañ ko war a franchir. Mm-hmm. donc mooy cinéma Sénégal egg foo xamante ne nii ñëpp dañ koy dégg. Mm-hmm. te mu nekk loo xamante nii acteurs yëpp ñu ngi siy ñu ngi siy ñu ngi siy ñu ngi siy teg loxo ñu teg loxo bu baax. xam noonu la demee et que nit bu ne rek booy def dara ñaan nga mu avancer donc acteurs sénégalais yi dañ leen war a xam. si international bi. xam ñu war a jouer ay projet yoo xamante ni àdduna bi ñëpp koy tudd. loolu la daal et ñu ngi si tànk yi ñu ngi siy liggéey te suñu boroom lu mu ñu mën a may rek incha allah dinañ ko dinañ dinañ ko nangoo noonu noonu daal la demee. d'accord am na solo ba tey ci expérience boobu gis nañ quatre fantastiques yi ban ban profil ci ñoom quatre moo la ci gën a marqué. ci ñoom quatre gis nañ ci eh, ki nga xam ne mooy mère Sow gis nañ ci les quatre. aussi ku ci nekk ak sa profil mais yow en tant que sa rôle lu ku la ci gën a marqué. man nag pour pour wax dëgg ñoom ñëpp ma daaj <laughs> gars yi ñoom ñoom ñëpp ma daaj eh. parce que dañoo nekk ñent ñoo xamante ne nii dañoo déggoo mën lu ñuy def lool looloo ma gën a yombal liggéey bi. Mm-hmm. looloo ma gën a yombal la fekk mooy tournée du ma si am problème. Mm-hmm. dañoo mën lu ñuy def trop trop trop di leen jaajëfal sëñ Kuna Fall Samir. xam nga Malcolm Duudu préféré waaw gis nga de xam nga boo boo boo mënee li ngay def moom xam nga mm-hmm. ñëpp lay ñëpp lay ñëpp lay béggee daal te mm-hmm. li def ñoom ñëpp ko mën donc pour ma tànn sax day xaw a nekk problème maa ngi leen di béggee bu baax xam mm-hmm. ndax ñoom ñoo ma jiiru si liggéey bi donc duma def dara lu topp seen ginnaaw xam ngi doon daal maa ngi béggee bu baax Malcolm ah, tubaab bi nag yow yow Fred yow lan la <laughs> Samir kooku Samir la Samir Samir li nga def foofu on dirait que tubaab boo xam ne day taasu. waaw waaw tubaab buy taasu la de Samir foofu moom da ngaa taasu moom. <laughs> Serigne na moom tamit jeu d'acteur. Mhm. ak aussi profilam c'est c'était extraordinaire. waaw il est authentique il mhm. moom moom mooy nekk nit koo xamante nii foo ko foo ko làmb rek mu mu mu mu jox la ko. Mhm. loo ko laaj rek dala koy jox. Mhm. xam mu nekk nit ku humble aussi ku baax ku ma mhm. yàgg a conseillé. mu ngi noon daal moom lu muy def da ko mën trop. donc moo tax tournage bi du métti dañuy teg plateau rek après door ko mu daan ñu seeti leneen. d'accord ñu tëjee ko rek comme niñ ko ubbee woon comme que dëmm la auzu billaahi mina sheytaan rajiim <laughs> yàlla musal ñu ci dëmm <laughs> ñu def cuuraayu dëmm fii ci <laughs> Sénégal takk téere dëmm bañ a dee ci feebaru dëmm waaw comme niñ ko waxee rek yow euh, avant loolu aussi maa ngi profité wu di di di nuyu sama famille mhm. nuyu sama di nuyu sama yaay bu baax mhm. di ko wax euh, kontaan naa ci moom di ñaan yàlla bàyyi ko fi ba si kanam kanam. Mm-hmm. ba lu bëri loo xamante ni ay doomam yénd nañ ko ko mu daal di koy fekkee. Mm-hmm. ndax mérité na ko. di nuyu sunu taaw ab sax. di mm-hmm. nuyu ndey ngoone coy ndey soxna coy di nuyu sama doom bàyyi bu baax. di nuyu ñëpp daal. daa mel ni sa xaritu yaay nga. waaw sama xaritu yaay laa nag sama yaay moom. ah defal ko dédicace spéciale. waaw yaa maa ngi lay maa ngi lay nuyu. di la wax euh, nga gudd fan. nga am jàmm bu baree bare bare ndax euh, li li ñu gis si man yëpp yow yaa def si man euh, bu nit ñi buñ demee bay bay bay tudd sa doom c'est grâce à toi mm-hmm. donc du def dara lu dul di la remercier di la ñaan nga gudd fan mm-hmm. ba lépp loo xamante nii bëgg naa ko si yow suñu borom mottali ko si barki Seydina Mouhamed xam nga mu ngi noonu ndax moom moom daf maa bëgg ba dafa sonn si man mm-hmm. waaw sama yaay mooy def bu ma ko bu ma ko joxee xaalis mu denc xaalis bi ba ma soxlawaat ko mu delloo ma ko. noonu lay noonu lay noonu lay def. Mm. ba ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ko famille bi ñëpp xam nañ ko dañuy naan yow Omar rek nga bëgg. mu ngi noonu waaye moom sa nëbbu ko nag. Mm-hmm. ndax da koy wax ne waaw bu yawoo moom laa bëgg. Mm-hmm. kon mu ngi noonu daal doom moo moo moo sori si xolu yaay. Mm-hmm. doom moo sori si xolu yaay donc du def dara loolu di ko wax mu yàgg fi lool. am tan bu bu yaatoo yaatu. ba lépp loo xamante ne ay doomam bëgg nañ ko rek. incha allah sunu borom ànd si. Mm-hmm. ñu ñu ñu daal di ko koy defal incha allah. di nuyu bu baax sama waa kër. Mm-hmm. di nuyu tamit fi ma nekk. Mm-hmm. muy sama kër magu yaay. Euh, muy muy Fatou Balde. muy sunu mooy mooy mooy seen taaw. di ko nuyu bu baax ndax tamit lépp lu nekk si man si ay principe ay valeur moom moom moo ko def si man. yu bëri du bëgg ma koy def yu bëri du bëgg ma koy def parce que dafay dafay incarner loolu noonu si famille bi ñun ñoo nekk ñoo xamante ni. bëgguñu ñuy dégg si si yu bëri mhm. donc mu ne ma koy nuyu bu baax xam nga tante di la ñaan yow tamit ñaan yàlla tamit nga yàgg fi lool wala mhm. lépp loo xamante nii nar nañ ko rek incha allah ñu bokk ko ak yow du nuyu naaxadi du nuyu jabu du nuyu awa ah waaw billaay gis na dañoo billaay dañ ma bëgg dañ ma bëgg ñoo bokk kër sama <laughs> cousine yi dañ ma bëgg lool sax billaay bilaay dañooy défendre fu ne. donc euh, maa ngi leen di béggee bu baax waa K56 ñoom xam nañ li may wax. <laughs> K56 maa ngi leen di nuyu waaw mu ngi noonu. <laughs> d'accord ça a été un plaisir Loulou nga mhm. ñëw fii ci émission Face et Facette. Mhm. bien que émission bi neex na la. ah bien sûr bien sûr. mais nag xamal la yéen a la jackpot. waaw <laughs> <laughs> loolu moom am na moom parce que ñi ko ñi bëggoon wax loolu lu bëri na. donc voilà kon ma may xamal sénégal yi nag bu ñu jaawale personne ak personnage. Mm-hmm. xam ne que dañoo dugg ci benn ci benn ci benn pauvre acteur. Mm-hmm. te tant que série bi jeexul rek duñ ko duñ fa génn dañuy toog sax même bu caméra yi fayee tourné wuñ. Mm-hmm. man dafa dem ba après si ci biir série bi ci biir kër gi du ma wax parce dama dem ba loolu dafa nekk ci man. du ma wax damay toog zen nii toog soit ma jaaxaar ak télé bi wara ma sama téléphone toog fenn benn ruxu après gars yéen acteurs yi sax dañuy ñëw si ma ne ma yow yaa ngi si rôle bi ba tey quoi xam nga loolu ma koy naan da ngay incarner rôle bi ba tey alors que jeex na mais dama dem ba ba mënatuma cee génn donc bañ ma laajee sax dama ne nii rôle bi man maa ngi si rôle maa ngi si personnage bi tant que série bi jeexul duma ci génn waaw waxuma la sax épisode di jeex mais tant que série bi jeexul bañ ne clap fin du si mës génn et que réussir naa ko donc euh, mu ngi noonu daal. d'accord ça a été un plaisir ñuy remercier la coordination waa Kawtef Nimz le grand influenceur di remercier aussi Aïda Dialkane di remercier ki nga xam ne aussi mooy Mina Khatab ki nga xam ne moo géré production bi di bay di ndaw équipe face ou facette ñu ngi leen di jox beneen numéro ak beneen invité jërë ngeen jëf.